ñuy ñëw di jël ay tomb di ko jàngat di ko dëppale sunu dundiin ak sunu diine li ci njumte ñu jubbanti li ci jaar yoon ñu gën a dëgëral mbokk yi tey jii xam ngeen ne tomb bi moom dana yaatu lool ci wàllu xew-xew bii nu génnee muy rassemblement bi ci wàllu caricature yi ñu doon def ci yonent bi sallallahu alayhi wa jaahil yooyu ne yu tekkiwul dara yooyu la nga xam ne yeneen bi lañ bëgg jël léegi def ko benn fowukaay boo xam ne heure bu leen neexee rek ñu def seeni dessin yu bon tu dee ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam pour jéem a xoqatal ak euh, noggatu euh, yenn ci jullit yi ñu bëgg a faagaagal jaaree ko ci bunt boobu waaye nag incha allah am naa yaakaar ni li nu bëgg duñu ko am de ndax wa yaba allahu waaw yàlla nee na lank naa illa an yutimma nuur ne leer gi dinaa ko yeggale fépp foo mu war a yegg incha allahu taala kon mbokk yi ñu ngi ndokkale jullit yëpp mooy tomb bu njëkk bi ci rassemblement bi nu def euh, semaine bi nu génn muy samedi bi passé la sept fële ca place de la nation man léegi dootuma wax place de l'obélisque parce li mu ëmb dafa yaatu parce que faramason yi seen mbir daf ci feeñ moo tax nañuy wax place de la nation rek ah waaw incha allahu taala daje bi fa jullit yi def bii passé te mu nekk daje bu symbolique daje boo xam ne mën nañu wax ne taarix la mën nañu wax ne yoon bu njëkk la ci ndakaaru daje bu ni mel am ci place de la nation marche bu ne am na fa ah, toogaay yu ñaxtu bu nekk am na fa waaye toogaayu ñaxtu bi am bii passé benn tur doon fa jib muy turu yonti yàlla muhammad lan sallallahu ala muhammad labbayka ya rasulallah baat bii rek moo fa doon jib la mu fa dajale ci ay jullit itam tiijaan murit xaadir laayeen ak mbooleem mouvement islamique yi ñépp dajaloo ñuy bàkk kenn ya rasulallah labbayka ya rasulallah ma ne keroog place de la nation yëg na lu musul yëg dégg na lu musul dégg gis na lu musul gis moo tax sunu frère bi maa ngi koy dégg keroog oustaz Mokhtar Sarr yàlla ko yàlla fay mu ne place bi nag bis ni tey dañ ko waroon tuddee nag place yu yonti yàlla Muhammad ma ah, na de ah yàlla na de waaye malheureusement ña ña yàlla dénk cëru ñu war ko def ñu ko def parce que xamuñu yonent bi te yonent bi ñoru leen ñu tuddee ko benn faramason moo leen gënal ñu tuddee ko yeneen si yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye keroog wane na boppam ci jataay boobu la xoola am na ñoo xam ne ay catholique lañu sax dañoo ñëw pour wane rek ni li ñuy teg ci deru yonent bi c'est pas normal loolu succès la koo xam ne dem na bu bokkul sax ci diine yonent bi waaye li ñuy ŋàññi yonent bi sax xam na ne tegewul ci yoon wax dëgg yàlla loolu joxaat na joxaat na yonent bi ndam joxaat na lislaam ndam wanaat na àddina ne leen ñi ñi yeewu ñëpp borom xel yu sell yëpp xam nañ ne yéen ay kàcckat ngeen li ngeen di teg ci deru lislaam dara du ci dëgg waaye incha incha allahu taala li yuzhirahu ala diini kulli seen mbooleem système yi ngeen tëral yëpp lislaam dina ko mëdd incha allahu taala yàlla nañu fi bakkan bi euh, euh, yal nañu fi yàlla bàyyi loolu la ñu bëgg a wax wala fanaan yàlla ñu fi dund gi bàyyi voilà mais c'est-à-dire li ñu ci juble rek mooy yàlla na nu fi yàlla bàyyi waaye du bakkan du dund lu fiy desal yàlla rek moo fiy desal li nu bëgg a wax mooy bu fan guddee bu nu fekkeewul it njaboot gi fekkee bu njaboot gi fekkeewul seeni sët di fekkee l'islam daa mëdd seen système yi ngeen tëral inchaa allahu taala te yéen xam ngeen lool moo tax sax ngeen di lal seeni pexe yi ngeen di lal kon ñi ngi wax ñi nga xam ne ñoo doon def rassemblement boobu ak ñi ko organiser ak ñi ko xalaat ak ñi wuy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw leen góor defal ngeen yonent sallallahu alayhi wa sallam lu mu yelloo moo tax keroog dama wax ni yonent yelloo na dajaloo bu mel nii fépp ci àddina waaye dafa raw ci Sénégal parce que yonent li mu séddale ci xeetam wallahi kenn ëppale wu ci Sénégal yonent sédd na xeet wu ne ci àddina waaye yonent sedd na Sénégal lu mu sañ a yëkkatee loxoom fu ne ci àddina Sénégal li nu am ci mag li leen yonent bi sedd ci leeram sedd leen ko ci xam-xam sedd leen ko ci jikko ñeme ñëw yëkkati loxo ne àddina wërngal këpp kenn tanewunu ci yonent bi kenn rawunu ci yonent bi kenn ëppalewunu ci yonent bi alhamdulillahi rabbil alamina wallahi su ma doon lim li ñu am ci ay maam yoo xam ne yàlla may na leen ñu ñu ëmb ci leeru yonent bi loo xam ne ña dëkkoon ak moom xamuñu ko kenn xamul ndax yonent li mu yor du jeex te te yàlla nga ko koy joxeloo ku ko so may na may na may na ci leeram loo xam ni nit bokk nag moom jamono di dund te amul ko ndax am nañu dund ak moom te gëmuñu ko abu lahab dund naag yonent bi waaye musul xam ne yonent borom leer la parce que mësu nangu moo tax musul jëriñu ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ñun fii ñu gis suñuy mag yoo xam ne seeni cofeel yegg na ci yonent di leen feeñu ci gént seeni cofeel yegg na ba yonent may leen ñu gis ko jaxaran kooku sunu émission yi weesu jaaroon nañ ci du soxla ñu di ci jaaraat kon dama wax ni bu ñu defalee yonent rassemblement bu mel nii ñëpp teew bakku ko kañ ko tagg ko yëkkati ko loolu dama wax ni yell na yell na fu ne ci àddina waaye rawatina fii ci Sénégal la gën yell kon yéen ñi ko organisé woon jërë ngeen jëf kon yéen ñi ko xalaat jërë ngeen jëf kon yéen ñi wuy si woon jërë ngeen jëf kon ñi mënul woon wuy si te seeni xol ñëw te ngant téye leen jërë ngeen jëf yonent yàlla Muhammad yelloo na lii yelloo na sax lu ëpp lii alhamdulillahi rabbil alamin dëgg la mu des beneen état mooy ni ñuy sàmmee deram ba kenn du teg ci deram lu ñaaw nu sàmmee ko jëfee ko jëfee ko li mu fi bàyyi waaw loolu tamit ba tey alhamdulilah rabbil alamina ñi ngi ci waaye nañ gën a góorgóorlu gis naa sax yeneen i mbokk yoo xam ne jàpp naa ne seen xërte seen xër ci diine ak seen xër ci sunna bi ak bëgg nit ñi gën baax moo tax ñoom dañoo gisoon ne rassemblement bii ñuy def am na lu ko ëppoon solo mooy nee nañu li nuy coow ci Macron li mu wax ci yonent ak ñi caricature yonent Macron jàppale leen ñu ne am na ay Macron yi ne Sénégal ñoom ñu ne am na sax lu gën a garaaw li Macron wax am na ñu koy wax fii ci réew mi man dama jàppale ne ñu dañu xër rek ñooñu dañu bëgg nit ñi gën a góorgóorlu ci yonent dama ragal ne seen cofeel ci yonent bi moo jéggi dayo ba ñu gis ne ñun ni ñu bëggee yonent dafa des ñu bëgg ñu gën a góorgóorlu waaye wax dëgg yàlla lu mel nii lu ñu war a encourager la parce que ñi ñu jàpp ne ñoo dajaloo woon fële la ñu gis ne moo gën a garaaw loolu ñooñu wax nañu ci wax nañu ci te ñooñu itam nag du ñoo waree du ñoom ñoo war a féete diine ji fépp loolu foog ñu xam imam Dame Ndiaye dafa wax ni diine ji ku ko bëgg féete fépp doo ko mujj féete fenn léegi am nañu gis ni def nañ ci yonent bi lu garaaw ñu jóg di combattre loolu wane ni lii ñu teg ci deru yonent bi jaaduwul lu ñaaw la nañu leen tàcc wax leen waaw leen góor am na ñeneen ñu taxaw fële gis nañu nee nañu nee nañu gis nañu lu gën a garaaw li ñii di wax ne dafa garaaw dëgg la li ngeen di wax garaaw na garaaw na waaye gis nañ lu ko gën a garaaw te mi ngi fii ci réew mi dañu leen di ñaan ne leen yéen tamit songu leen wàllu woowu ñee songu wàllu wële ñëpp daje loolu la parce que diine ji kenn mënu ko féete fépp da ngay féete fii keneen féete feneen keneen féete fële mais ku ko bëgg a féete fépp doo ko mujj féete fenn kon jërë ngeen jëf yéen ñi gis ne am na lu gën a garaaw loolu ñi ngi leen di ñaan li gën a garaaw loolu yéen taxawal leen nu foofu ñeneen taxaw feneen ñeneen taxaw feneen te sax man gis naa ni li ñuy tuddee li gën a garaaw loolu ña doon def rassemblement bàyyiwuñ ko fi gis nga rassemblement bi ña ko doon def du tarixa du mouvement islamique du ONG du ab daayira xola jullit yëpp la man gis naa fa kuréel yoo xam ni ñoom seen xeex ci diine ji fa nu bëgg a féete diine mooy ñi ngi xeex affaire ngóor jigéen ak affaire franc gis naa ci ñi ñi mbir mi ñoo xam ne fa nu bëgg a féete ji mooy dañu bëgg xeex lépp lu jëm ci wàllu planning ak lépp lu jëm ci wàllu avortement médicalisé buñ na planning nag mooy planning familial plan national tëral ko ci anam boo xam ne dañ koy defloo jigéen ñëpp ku am ngant ak ku amul ngant ñi ko war a def ñi ko warul def pousse ñëpp ñu def ko pour ñu limiter seeni njur am na ñoo xam ne seen combattre tu loolu la jëm te bokkoon nañ ci ñu doon organiser loolu gis naa ñoo xam ne ña fa woon ñoom seen fi nu bëgg a féete ji mooy lépp lu jëm ci xeetu jikko yu yàqu yi ñu war ko tabaxaat delloo si waat tedd ngay jikko yi ñoom ci loolu lañuy ñuy bokkoon nañ ci ñu doon organiser loolu gis naa fa ñeneen ñoo xam ne dérive yi ñuy gis ci internet bi nit ñi di ko wax di wax ne da ngay gis ñoo xam ne dañuy wax ci yonent bi lu jaaduwul mbaa ñu wax ci yàlla lu jaaduwul wala ñuy wax ay wax yu rëy loo xam ne yellul ci xàq sunu boroom yellul ci xàq yonent bi delloowuñu yeneen bi gëdd ba yell ci ñoom am ñoo xam ne seen combattre foofu rek la jëm mooy di delloo si waat ak di corriger ñi nga xam ne dañuy am xaal yu tàng yooyu bay dérive di def ay faay ci seen i wax di leen delloo si ñoom seen combat rek la te ñooñu bokkoon nañ ci ñu doon organiser jataay boobu la kon boo seetee jataay boobu ñi ko doon organiser mooy mbooleem ñi nga xam ne dañoo xaajoon ku nekk taxaw ci benn pàcc bëgg fa féete diine kenoon ñoom ñëpp dañoo dajale seeni combat ñëw ci benn place taxaw fa jëmmal kenn ki taxoon ñoom ñëpp ñuy def muy yonti yàlla muhammad kon kay leneen loo génne wax ni lii lañ waroon a wax xamal ne loolu ña ña fa nekk am na ci benn kuréel boo xam ne loolu lay xeex su dee ngóor jigéen la am na ci benn kuréel loolu lay xeex am na sax ñoo xam ne seen combat laïcité la dañu d'accord ne lay laïcité waru fi waru fi gouverner dañu jàpp ne li charia lañ fi war a doxal am ñoo xam ne foofu lañ bëgg féete diine ji te bokkoon nañ ci ñu doon organiser foofu kon amul benn pàcc booy laal boo xam ne yitteel na diine lu dul gis nga ne ña ne woon ca rassemblement ba kuréel boobu ñëw na fa boole seeni doole ñoom ñëpp wane ne ñun ñooy njabootu yonent bi loolu loolu lu ñu war a saluer la loolu suma ma woon rek ne c'est la première fois ñu gis ko ci histoire mbooleem combat yi ñu war a xeexal ñoom ñëpp dajaloo ci benn barab ci benn bés jëmmal kenn yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi ngi leen wax waaw leen góor peut-être nag ñooñu dañu comprendreul ñi organise mbir mi moo tax waaye bu ñu toogoon tuuti seetaan mbir mi du début ba fin daañu gis mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo fa teew que ne yi niy wax ne moo fi am te gën a garaaw wax nañ ci ñay combattre loolu ña nga woon ci jataay ba ñay combattre laïcité ña nga woon ci jataay ba ñay combattre góor jigéen ña nga woon ci jataay ba ñay combattre franc-maçonnerie ña nga woon ci jataay ba ñay combattre avortement médicalisé ña nga woon ci jataay ba ñay combattre limitation de naissance ña nga woon ca jataay ba ñiy combattre jikko yu bon yi ñuy bëgg indi ci pénc mi ña nga woon ca jataay ba mbooleem loo xam ni lu ñaaw la lu ñu war a xeex kuréel yi tasaaroo woon di ko xeex keroog def waa waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ñu jëmmal ko ca place de la nation te nit ñi miinee woon ko place de l'obélisque kon alhamdulillahi rabbil alamin loolu bii bu wéy la ci Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin kon mbokk yi loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñaan yàlla nag yu mel noonu di am loolu warul am benn yoon mu jeex toujours dañ war di am ay yëgu-yëgu yoo xam ne yëg-yëg yoo xam ne bi ñu dalee ci l'islam dal ci yonent bi te mooy dal ci lislaam kuréel yooyu yëpp fàtte kenn ku nekk sa bopp ñëw taxaw jëmmalaat yonent bi pour ñu jox ko xàqam jox ko gëdd ba yelloog moom parce que kat fii cir bu ñu fiy jox waay bu ne yonent moo ko gën a yelloo ñëpp kon alhamdulilah rabbil alamin rassemblement boobu nag ragal naa France yëg na ko ndax addina yëpp teewoon na xanaa nee nañ ma France 24 daal moo ko génnewul waaye TV5 Monde ñëw na TV5 Afrique ñëpp wane nañ ko moo leem chaîne yi ñu xam ci chaîne yu mag yi moo xam national moo xam international jël nañu jataay bi tas nañ ko ci àddina wan Macron ne ko waa Sénégal ji nga jàpp ne say doom lañu bi nga jàpp ne yaa leen yilif ndekente yilifoo leen fipp nañu tontu nañ la xas nañ la delloo nañ la sa ànd toogloo nañ la sa place wan nañ la ne la ñoom yonent mooy seen kilifa loolu France 24 tas na ko ci àddina yëpp wane na Sénégal taxaw na wax na Macron arrête kon loolu ñun euh, message la bu rëy boo xam ne ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. doon na gën a neex na président de la république tontul nu président wu France doon na neex mu attaqué nu président wu Sénégal tontu nu président wu France loolu moo rafetoon parce que doomu France moom la ñu wax ne dañ ko rey président France ñëw taxaw. jëlal ko combat bi waaye fii tamit dañu tooñ doomu jullit doomu sénégalais doomu Sénégal président am waroon a tontu président wu France malheureusement mu lank bañ ko def te montant euh, président de la république Macky sal yeneen bi de lebal na la loo ko mënul fay parce que réew mii nga toog di gouverner réew mii nga toog di gouverner njabootu yeneen ñoo la fa teg njabootu yenent ñoo la fa teg soo compté woon li la teg ci sa fauteuil boobu quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent yëpp njabootu yenent ñoo la voteel nga toog fa président Macky Sall delloo woo yenent bi njukkal président Macky Sall fa yoo naar bi xoromam fauteuil bii nga toog tey grade yi nga am gëdd bii ñu la jox sixe bii nga am tey ci àddina honneur bii ñu lay defal ci àddina njabootu yonti yàlla muhammad ñoo la ko jox ñu saaga yonti yàlla muhammad ñu ñaan la nga tontul ñu nga làng bind bind bi gën a yomb sax defaloo ko pour wane ni li nu teg ci deru yonent rafetul te njabootu yonent teg le ci foofu jox la privilège yooyu jox la kàttan googu dëj le ci àddina yépp ñu di gis fa yoo naar bi xoromam loolu ñaaw na te bi mu saagaa yonent bi ca France Charlie ma ko saaga ñu rey ko waa France di dox doxu ñaxtu da nga jël karosenu Sénégal njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa jël seen avion jël seeni bien naaw moom ba France dem di naqarlu li ñu def Charlie Hebdo dem di naqarlu li ñu def Charlie Hebdo te yaa ngi ko doon def ci ndoddu njabootu yonent bi te Charlie mi ngay naqarlul yonent bi la saaga ñuy doxaat ba 2020 ñu saagawaat yonti yàlla Muhammad mu fekk li fii ci biir Sénégal njabootu yonent bi di naqarlu lool wala dajaloo ca place de la nation ni homme politique yi toll ci réew mi mennam yow kenn képp la ñu bind lettre defal la invitation ñëw ba sa kër jox la ko ne la dañoo saaga yonti yàlla muhammad ñu fas yéene wax ni lii lu naqari ci ñun la ñu bëgg nga ñëw bokk ñun loolu parce que yëg nañ ne ñoo yow ñoo bokk yonent bi xoromaloo leen sax lettre ba tontuwuloo ko ñëwuloo yónneewoo te njabootu yonent boobu nga xeet ñoom ñoo la teg ci sa place boobu loolu kersa la waroon a def ci yow ñu teg ci ñaari fan nga jël sunu avion ne fes dellu France wuy ji Macron lii de xam nga ne ñaawul président Macky sal soo wéetee sa néeg nga tëdd xoolaatal sa bopp lii di rafet lii du lu rafet addina bii day jeex sa ndomba tànk gii yàggul ci barke yonti yàlla Muhammad ci nga amee ndomba tànk bi njabootu yonti yàlla Muhammad ñoo la fal ci réew mi parce que ñoo fi majorité ñoo fi majorité ku fi falu ñoo la fal kon lépp lu laal seen xol war nga bokk ak ñoom naqar woowu nu raw na ngay demee di bokk waa France naqar wa nu am waaye nag bett nga nu bettoonu ñi ñi xamul li xew bett nga leen waaye ñi xam li xew bettoo leen ñun toog nañ ci plateau télévision imaam yi di la invité pour nga ñëw bokk ci ñi ñiy naqarlu li ñi def yonent yàlla Muhammad ku mel ni professeur Diagne ku mel ni Abdou Karim ñu toog ne doo ñëw parce que faramason nga lii wax nañ ko ci télé te nañu xaar ba bés ba ba xam di ñëw bés ba jot ñëwuloo ma ne lii lii rek jaroon na nga ñëw pour nu xam ne yow jullit nga wala lan nga kon nag mbokk yi lii bés la woon boo xam ne dañu waroon a xam ñun ki nu jiite fan la yonentu toll ci moom bés la woon boo xam ne dañu waroon a xam ki jiite fan la fiitee ci Charlie wala ci yeneen bi parce que premier fois dafa waxoon ne je si Charlie ñëpp jàpp ne erreur la ñu sëkkatal ko mu wax ne nii la demee nii la demee mu jàll xanaa bu nu ko defaatee kay bu nu ko invité ci yeneen mu may la mu mayoon njabootu Charlie mu may ko njabootu yeneen loolu lañ doon xaar malheureusement loolu amul loolu nag am naa yaakaar ne jullit yi tiire nañ ci leçon bu rëy rëy rëy xam nañ ne ñun ndeke suñu diine bu ñu xaaree pour président Macky Sall protéger ñu suñu diine du moo ñuy protéger suñu diine du moo ñuy protéger suñu diine ndeken bi ñun booy boo ñu taxawalaat suñu bopp jëmmal xam ne suñuy arme suñuy moyen suñu lépp ki ñu ko jox pour mu sàmmal nu suñu yaram sàmmal nu suñu bakkan sàmmal nu suñu xel sàmmal nu suñu xam-xam sàmmal nu suñu diine moom won nenu nenu seen diine moom keccat leen ko ci bokk ci sama yoon nekku ci awma ci defar awma ci yàq tudduma ci wax jërëjëf leson boobu moom comprendre nañ ko bu baax a baax a baax léegi nag li des rek mooy jullit di am fayda xam fan la ñu jëm te bu ëllëgee ñu xool koo xam ne mën nañu aaral suñu diine ñu teg ko ci fauteuil bi xool koo xam ne danañu aaral sunu bakkan yi ñu teg ko ci fauteuil bi xool koo xam ne dana daw ci waawu sénégalais yi bañ a déglu waawu tubaab yi teg ko ci fauteuil boobu kon mbokk yi taxawaay bii bu mu dañ na sax na am parce que am na lu mu jëriñ bu njëkk ba taxawaay amagul ba manifestation amul ba wane li nu gëm amul moo ko mayoon fitu ñu saaga yonent bi mu dem ba France di naqarlu la def ca Charlie Charlie mi saaga yonent bi ñu rey ko président jóge fi dem di naqarlu loolu loolu ñàkkoon ay taxawaay a tax mu def waaye gis nga bi taxawaay amee ren jii bin saagawaatee yonent bi ñu rey ki saaga yonent bi président dafa am problème bu rëy mënul mënul naqarlu waaye ñemewul bind sax di masawu waa France parce que xam na bu bindee masawu waa France li ko ciy fekk léegi jullit yi taxaw nañu pour téyel mbir mi seen bopp pour xam kii ban côté la féete moo tax Facebook am ak Twitter am ak fu ne la gars yi di yërndu di xool rek ba xam dana bind massawu waa France waaye ba tey defu ko xanaa voyage am bi amal na bu demee moom Macron ñu wéet dana ko massawu waaw dana ko massawu lool nag lu triste la lu metti la parce que man mënuma jiite ay jullit quatre-vingt-quinze pour cent gën a néew quatre-vingt-dix-sept pour cent ci ñenn ñi te lépp lu naqari seen xol man ma wax sama yoon nekku ci loolu mënul nekk loolu loolu loolu loolu ku ko bëgg a lu ku ko bëgg a lu yow sax pas-pas dafa des mais xel moo nanguwul gis nga yow boo nekkoon ak jullit laa wax de di njabootu yenent bi ñu fal la ci am réew moo xam ne catholique yi ñoo fa nekk majorité ñu avancé lanu gëm di yonti yàlla ay te moom la ñu gëm wax dëgg yàlla amul séparation suñu digganteeg yonti yàlla Moussa yonti yàlla Muhammad yonti yàlla Isa ñun ñoom ñëpp lañu ko jiite ga nga leen jiite ñu nekk fa majorité lépp luy metti ci seen kaw danga nga ciy taxaw te danga leen di masaw te da ngay bokk ñoom naqar woowu rawatina nag ba nga nekkee jullit ñu nekk jullit ci liñ wax su dee liggaay yi tuumaal loolu dindi wuloo ko kon mbokk yi loolu benn tomb la woon bu njëkk ci liñ waroon a ubbee jataay bi ñaareenu tomb bi ci topp nag mooy suñu homme politique yi nga xam ni yàpp nan ñu yàpp gu ni jàppee ñu ay fowukaay di prôner ay valeur ay valeur yoo xam ne gëmun ca dara gis ngeen remaniement bi passé bi mu génnee am na ñoo xam ne choc lañu am choc gis ñu titre ay opposant yoo xam ni kenn xalaatul woon ci àddina ne danañu dugg ci nguur gi parce que opposant yooyu dañoo taxaw fu ne ci senegal naan nguur gii fi nekk ñi ko yor jubuñu ñi ko yor baaxuñu ñi ko yor mënuñu ñi ko yor sàcc nañu alalu réew mi yóbbu ko bitim réew ñi ko yor dañu fee bàyyi waa réew mi bàyyi fi kilifay réew mi dem jébbalu ci ay force étrangères yoo xam ne léegi ñoo ñooy seeni sëriñ ñoo ñoo leen di digal ñuy def ñoo leen di tere ñuy bàyyi daal di ne ñii nag fii ñi ngi fi réew mu du dox abadan mais opposant yooyu démb ñoom la ñu jël ñu fal ñu dem dugg ca nguur gañ ñu waxoon ñii baaxuñu ay sàcc lañu ñoom ñoo dem di liggéey ak sàcc yooyu ñoom ñoo leen tuddee ay sàcc dem di liggéey ñoom kon léegi ñoom ay sàcc lañu ñoom ñoo ñu waxoon ne ñoom ñoo dem sàcc alalu réew mi yóbbu ko bitim réew yeggoon nañ ci sax di ŋàññ ay institution yoo xam ne lu mel ni CSE lu mel ni Haut Conseil dinu wax ne ay institution la yoo xam ne amul benn njëriñ yàq xaalis a tax ñu def ko fi dañ ko war a tas dugal ko ci soxla askan wi président woo leen jox leen institution boobu ñu jël ko di ci fayee ko ay millions par weer di ci gagné ay milliards di ci am ay ndomba tànk yu kawe ñu ne pat mel ni ku mësul woon a wax lu bon la te kooku bi ñu defee élection yi passé moo jël deuxième mbokk yi lii gàcce la yeneen opposants yi na mooy régime bi fi génnoon bii passé 2012 ñu nu wàcce woon dafa mel ni da ngay génn président Wade entourage bi ko waroon ñëpp dem nañ dugg ci gouvernement waaye yow nga ñëw taxaw 2012 ne ñu ñii ngeen fi bàyyi ñu nekk fi depuis 2000 ba 2012 sàcc leen seen alal yi lekk nañu seen xaalis dund bi cher na liggéeyuñu fi dara su ngeen ma falee dinañ leen fi jële te dinañ leen jàpp nangu alal jin sàcc yépp delloo si waat ko ci réew mi Sénégalais yi déggulool loolu ba folli ñooñu fal la nga ñëw toog def benn mandat rëddal ñu ñaar fukki nit ak juróom nit ñi ñi ñooy sàcc yi gën a mag ci régime ba tëral benn ëttu attekaay tuddee ki cré yi di leen woo benn par benn ñooñu ñu bindoon ci cré yi ñu bare ci ñoom dugg nañ ci gouvernement bii tey te ba léegi delloowuñ dërëm ña leen jiiñoon ay sàcc ñoo leen woowaat dugal leen ci biir gouvernement bi joxaat leen ay ndomba jox leen ay ministère jox leen ay société jox leen ay entreprise nommé leen ay DC ak ay PCA mais ñun dañoo yàpp opposant bi bu saaga pouvoir bi ba mu neex ko su ko pouvoir bi woowee jox ko ay ndomba mu ñëw jël toog pouvoir bi bu saaga opposant yi ba ñu ne kenn baaxu ci mu xëcc ko liggéey ak moom sénégalais yi nanu yeewu gis nga politiciens yi lii ñuy def di mabbu jikko di wax waxeet di prôner ay valeur ba pare ci kaw lañu koy wax mais ci suuf duñ ca def dara sénégalais yi dañu war jóg pour loolu jeex Sénégal walla leen ne yéen bu leen ñu fontoo gëmu leen tus daraay valeur amuleen leen lu ngeen wàccu lekkat wax waxeet léegi du dara ay magi jëmm ami doom ami sët ci réew mi te heure boo waxee ñu ne diw du wax ko tu dëgg te loolu deful dara ci yow loolu loolu gàcce la ci homme politique yi fi nekk léegi moo xam ñi ne ci pouvoir bi ak ñi nekk ci opposition bi sénégalais yi xam nañu ñi ñuy waxal nga xam ne wax nañu fii ci digg pénc mi ñëpp di dégg diw sàcc la diw sàcc la diw sàcc la diw woole ne la kaay ñu liggéey nga dem ànd ak moom yow lan nga yaa ngi rawale nañu leen boole ñoom ñëpp tuuri ca mbalit te xoolaat ñu sell ñu yiw ñu am xam-xam ñu am jikko ñu fal leen dénk leen sunu alal ñu sàmmal ñu alal ji sàmmal ñu jikko yi sàmmal ñu ngëm-ngëm yi sàmmal ñu pas-pas yi waaye bu dee régime bii rek ma gis ak ñii ko wër ñoo dàq yàq golo ci toolu xaal li nu yàq ci réew mii jël ay golo dugal ci toolu xaal lafa fa golo ya di def moo gën a yées moo gën a néew doole ñii ni ñu def réew mi non seulement tong-tong nañoo alalu réew mi sàcc nañ ko daanaka ba kenn mënatu fee jëriñu njàng mu baax amul tali yu baax amul sécurité bu doy amul paj mu baax amul dund bu baax amul ndox moom nañu rey courant yu xamaj ànd ak loolu yépp ñuy bëfu yi jikko yi benn jikko bu baax bu desati ci ñoom amul ñu sàggani jikko yi di wan bés bu ne nee ngor du dara lii la wane ci àddina bi di ko wane ci réew mi bés bu yàlla sàkk loolu dañoo yëgg ci jamonoy na doy boole ci nag di gën a màbb sunu diine di gën a xoolal li la xewoon daaw te di répété wu waat mooy école Jeanne sunu kàddu daaw mooy sunu kàddu ren ñun amuñ ñu ci ñaari wax institut Jeanne amul benn droit di muriloo jullit yi fa bëgg jànge mu ne leen kenn du fi muuru amu ci benn droit tegu ko fenn du école catholique école laïque la du école catholique école laïque la enseignement général lañuy def état bi daf ko subventionné dañu jël alu réew mi def fa jël programme réew mi yóbbu fa doomu réew mi moo fay jànge su amee école catholique boo xam ne dañ ko ubbi catéchisme rek lay jàngale état bi du ko subventionné doomu jullit yi seen alal waru fa dem ñoom nañ fa jàngale lu leen neex waaye ubbi école laïque fii ci Sénégal ñuy jël alalu réew mi di fa def ñaqu réew mi di fa dem doomu réew mi di fa jànge ñu ne leen pour ngeen ñëw jàng for ngeen foog ngeen bàyyi li leen diine sant c'est pas normal tegu nu ko fenn du yoon loi yooyu nag France la xew France ñoom dañuy tere muuru seeni loi da koy tere ñoo xam mais fii du France kenn amul droit waa France amuñu droit jóge France ñëw fii Sénégal di ñu imposer seeni loi ci suñu biir réew kooku c'est pas normal waa Sénégal bu ñu jógee fii dem France du ñu mën a def lu dul respecter loi yi ne France kon waa France bu ñu ñëwee fii ubbi fi école tuddee ko gendarme tuddee ko nuñ ko mën a tuddee du ñu def lu dul respecter loi yi ne fii ci Sénégal mooy école laïque yi amuñu droit tere amuñu droit tere muuru amu ci droit amuñ ci droit léegi nag lenn rek moo des mooy am état bu am fayda moom mi rëdd ay luwaawam voté lu luwaa yooyu ñëpp bokk luwaa yi mu woowaa école bi wax leen luwaa yi lii la ñu topp luwaa yooyu su dee état bu am fayda la fooguma ko ci ñii ma gis na nga xam ne ay complexe lañu amuñu benn gëdd ci kanamu tubaab yi ñemewuñu siggi sax xool leen ragal na nañu wax ne sax ñun ay jullit lañu ñemewuñu wax sax ne ñun ay nit yu ñuul lañu am nañuy valeur xalaatuñu loolu ñemewuñu ko kottu kottu yollu yollu seen kanam wii wii wii wii bakkañ te gis nga loolu su ko état bi réglé askan wi dinañ ko régleel seen bopp te bu ko askan bi réglelee boppam mbir mi dina jéggi dayo amuñu droit di tere jullit yi jàng ci école sénégalaise boo xam ne se lay ñu leen di tere foog ngeen bàyyi seen diine pour ngeen mën a jàngee ci école bi loolu amuñ ci benn droit su dee école catholique moo fi nekk nag boo xam ne catéchisme lay jàngale catholique yi ñoo fiy def seen alal def fa seen programme jullit bu fa dem ñu ne la mureekul da nga war a mureeku parce que yaa leen fekk seen diine yaa leen fekk seen programme yaa leen fekk seen alal waaye école boo xam ne loi yi ko tënk loi générale la loi laïque loi sénégalaise pas loi diine ba pare alalu réew mi fay dem doomu jullit yi seeni alal daf fay dem ñu subventionné école bi ci façon bu jéggi dayoo kon doomu Sénégal yi dañu am droit jàngee foofu na ñenn ñi dëgg la dëgg la dëgg am na ñuy wax ne Sénégal yi jullit yi nañu am fay fayda génn fa seeni doom waaw loolu dëgg la mën nañ fa génn seeni doom mais nag loolu dafa normalul est-ce que mën nañoo bàyyi réew mi nekk pëcc xoo boo xam ne léegi ku mu neex nga tabax sa école dem ci état bi légaliser sa école wax na layig nga samp ñu jox la ay subvention nga teg ko ne waaw léegi ku dul julli doo fi jàngi c'est pas normal am na ay école privée yu fi nekk yoo xam ne ay jullit ko moom mais sañu ñoo tere chrétien bu fay jàngi sañu ñoo tere chrétien bu takk cravate sañuñu croix en fon croix sañuñu ko parce que tànnuñu tànnuñu njàngale diine am na yeneen école franco arabe yu fi nekk wala ay école arabe yu fi nekk yoo xam ne ñoom diine rek la ñuy jàngale dem ak seen moyens bopp ñooñu bu leen neexee ñu ne fii ku fi dugg muurul waaye état bi joxu leen alal ji ñëpp bokk subventionné wu neen kon nag loolu lañu buggoon wax ci affaire u Jeanne d'Arc bi daaw dégg nañu Serigne kër Sy Mansour Al Khalifa wax na ci artu leen ne leen bàyyi leen xale yi ñu jàng ren ji ci gàmmu ji déggaat nañu Serigne Babacar Sy Mansour feddaliwaat ay kàddoom Al Khalifa nen na nu bàyyi doomu jullit yi bëgg a jàng ñu leen di muri état Sénégal nag na respecté kàddu xalifa bi na respecté kàddu jullit yi na respecté bëgg-bëggu sénégalais yi ñu delloo xale yi ci seeni muuraay delloo xale yi ci seeni classe ñu jàngi jàmm na ñooy Sénégal lii la ñu xam jullit yàgg na fee dugg ci école boo xam ne ña ko yilif du nu ay jullit mu jàng ba génn te amul ak ñoom benn problème ci diine catholique yàgg naa dugg ci école boo xam ne ay jullit ñoo ko yilif mu jàng fa ba njàngam jeex te amul benn problème ak ñoom ci seen diine ku nekk di sàmm sa sa sa pas ak sa ngëm-ngëm loolu nañu ko sàmm nañu ko gën a dëgëral kon nag mbokk yi loolu nañ ko sàmm te bàyyi ci xel Sénégal loolu la xam jàmm jooju yàlla na fi sax yàlla na fi yàgg jullit yi chrétiens yi yàgg nañ fi dëkk te mosuñu am benn problème kon bu ñu yëngal yoo xam ne mën na tax ay noonoo di am ak ay bot di konte di am loolu nañu ko moytu suñu dëkkin wu yàgg wii te rafet ngir yàlla bu leen ko yàq nañu bàyyi xel ne am ne benn minorité bu ne ci àddina bi duñu jullit du nu katolik ay faramaçon lañ seen yitte mooy diine yi dajaloo di xeex rek tarixa yi dajaloo di xeex rek pour ñoom ñuy gën di gouverner àddina di def li leen neex ànduñoo jullit yi ànduñoo catholique yi ànduñu cee kenn ñoom dañuy mbëkkanteloo diine te fii ñi ciy jullit ñay catholique am na sax ay mbokk deret laa wax ay mbokk deret ñi bokk benn kër ñi bokk benn village ñi bokk benn dëkk ñi bokk ndey ak baay bii jaxasoo bu rafet musuñu am problème faramason yi ñoo commencé ñëw nag bi jéem a laal yoo xam ne pour mbëkkalante ñaar ñi la sénégalais yi lank leen loolu état Sénégal na taxaw ci loolu donte moom fooguñu mu am ci fayda parce que xam nañ ni daanaka dégluwul jullit dégluwul katolik waaye faramason yi la gën a déglu kon bi may jéexalee nag mooy wàllu mbëkk mi ndaw ñi nag jot na sëkk ñu xoolaat mbir mi mbokk yi mbëkk mi nag dëgg-dëgg war ci wax barsa walla barzaq njuumte la na ndaw ñi wàññi alir bi ñuy taw c'est pas ça même pas un mois quatre cent et quelques personnes ay jeunes génn àddina ci biir géej ñeenti téeméeri jeunes ak lu topp dee ci biir géej ndax lan dañ bëgg a tukki réew mi non ëpp na même pas un mois corona def na fi huit mois li mbëkk mi rey moyen de un mois corona reyu ko ci huit mois mbokk yi lii dafa ëpp jeunesse bi nañu dar dëgg la dañu découragé seen yaakaar dafa tas ci réew mi parce que ñi ko yor ni ñuy gouverner dara baaxu ci waaye loolu bu mu tax nga sacrifier sa bakkan nanu jàppalante nanu yërëmante nanu bëggante waaye di yor jeunesse mooy yaakaaru ëllëg ñu bàyyi sunu jeunesse bi di suux ci géej gi ba kañ quatre cent jeunes même pas un mois mais loolu loolu ëpp na seetaan parce que jeunesse bi ñoo yaakaaru ëllëg bu ñu toogee di xoolee jeunes yëpp suulu ci ndox mi fan la réew mi jëm c'est pas normal xale yi nañu toog nañu ut solution ci réew mi parce que dañu jàppoon ne génn bi solution la waaye gis nañ ne ndeke génn bi du solution ndax complot bi nekk diggante waa Occident ak suñu réew africain yi nga xam ne ñoom dañu booloo pour sacrifier xale yi ci géej gi parce que gis nañ ne xale yaa ngi yeewu te gis na ni ñuy defee dara baaxu ci ñu kompaloo seen biir di suul xale yi ci géej gi lu leer laa la wax ñu kompaloo seen biir di suul xale yi ci géej gi pour ñu dee ci ndox mi di leen miine ak ay courant di këpp seen gaal yi def exprès léeg-léeg këpp gaal yi di leen mbëkk ñuy daanu ci ndox mi di leen miine ay courant muy fël gaal gi muy daanu xale yi di dee ci biir ndox mi pour ñu arrêter tukki bi ñuy def ci biir géej gi mais mën nañ leen corriger mais sans ñu rey leen xale yi nag bu ñu demee ba xam ni ñii rey ñu ak naan ndox la ñu yemale ñoom nañ xam seen bopp ñu fonk seen bakkan yi le euh, ñu fonk bakkan yi te sàmm ko te jéem a xosluwaat rek xam ne li yàlla bind suñu jëb yi incha allahu taala bala noo génnaat dina daañu ko jot yal na yàlla jotalal ñëpp xéewal yal na yàlla may ñëpp ci lu nu jàpp yal na yàlla jàppandal dund jàppandal koddaay ñu ngi leen di jox dig daje incha allah semaine bii di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu